vai falar te ma o because am nga lihem kam li hewde o fa dama ma mo gina am so way ba fu ñu ne dañ leen oral ba pare waaw su fekkente ne dem nga be tolu fu graw ya ngi ko wow wa yo da nga because bi dafa am fuñu ñu rek because yalla du julli ak or rek lay fe understand yàlla dina fay leneen am na ko julliwul oorul te mu dee dem al mooy di ko rafetal ñi daal seetluñu yow yaa seetlu ñoom ñuy wax ne dangaa sellal man dama ah, seetlu murit waxuma ne comme ñeneen ñi sellaluñ ko walla ñoom seetlu dafa am tolluwaay yow tey xam nga ne lépp loo bëgg a def yow yaa di jël sa own responsibility mm. ok ñooñu tamit ñoo amee seen boppam am na maybe lu ñu yaakaar loo xamante ne óor na leen ne suñu oorutee sax ñoom ñu ngi cool ñu ngi secure waaye soo oorutee doo secure wu la lu ma jaaxal ba jaaxal mooy Big Faa kooku nu mu leen ooralee naka la nit naka nit di ooralee nit bamba mi ne wàcca na wàccaaleel ku ko yaakaar waay xanaa bamba du mbindeef comme yow ah bamba weesu na man nu ma mel de. waaw mbindeef la daal ku yàlla bind comme ni la bindee. mbindeef la waaw. waaye weesu na mbindeef bu ma mel man. Eh, lu tax loolu. because liggéeyal na yàlla man lu ma ko liggéeyal. waaw mun ngaa liggéeyal yàlla lu nga liggéeyal yàlla kon moom nu mu def ba liggéeyal yàlla nga def noonu liggéeyal yàlla yow ndax man mun naa ko. jéem boo ko jéemee mun ko def fii nu mu def mun ko def mun ko daf ko jéem tëdu. daf ko jéem waaw. man. Ah. yow. Hmm. sa maam hmm. suma maam munuñu ko. <laughs> waaye jéem jéemuñ ko moo tax. yow da ko waaw yow soo ko jéemee dafa am loo xamante ne yàlla daf la ko jagleel. Hmm. mu jox la ko ne lii ngay dooni afta nga doon loolu. léegi yooyu daal dafa ne yow da ngaa fii di wéy di yuxu. ñu <laughs> ne la eh, cale ñi nga def. Big Faa daal gis nañu ko. yéen da ngeen soof ñibbi leen.